Euh, mu mel ni bokk ñu bokk yàlla al yawma yawmul xamis tey bisab alxamis la terees muharam fukki fan ak ñett ci muharam euh, ci ñi nga xam ne loolu lañ jàpp waaye fukki fan ak ñaar ci muharam ci ñi nga xam ne loolu lañ jàpp di weeru tamxarit atum 1444 atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent dëppoog euh, ci hijriya gàddaayu yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ko onze août fukki fan benn ci weeru tubaab yi di mois de août atum 2022 atum ñaari junni ak ñaar ak ñaar bokk ñu bokk yàlla fukki fan ak ñett dafa bokk ci lim yu yi kon tey refatut moo fukki fan ak ñaar kon tey ci alxames ji refatut bokk ñu bokk yàlla duwaawul yawm allahuma inni a'uuzu bika min alsheytaani arrajim allahuma inni auzu bika min alcheytaani arrajimi allahuma yow buur inni naka man auzu dinaa muslu bika ci yow min alcheytaan ci cheytaan arrajimi kada ko ñu jam arrajimi kada ko ñu dàkku arrajimi kaji ki nga xam ne soroon nañ ko yémmaande suñu borom subhanahu wa taala euh, bokk ñu bokk yàlla euh, ñaan gi dafay muslu ci seytaane mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala da koo dàkku ci yërmandeem soril ko yërmandeem mu nekk koo xam ne ku ñu jam la waaw bokk ñu bokk yàlla kon ñaan gi ak xadis bi ci seytaane li ñuy wax kon ñu ñëw ci hadis bi indi ci leeral yiñ ci war def ci seytaan kon mbokk yi loolu mooy ñaan gi xaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na suñu borom subhanahu wa taala sëmbërtal yërmandeem ak yiiwu ma xéewalam dolli yonent bi salallahu wa sallam ak mucc ak kóolite waaye defal ko ko defal defal ko ñoñam defal ko mboolemi sahaaba ak mboolim jullit ñi yonent bu tedd boobu di muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na al abdu laa yanju min alcheytaani illa bi zikri llahi rawahu ibnu gazaymata eh, fi saxiihi wasaahu albani hadis bi ku ñuy wax ibnu xusaymata moo ko solo ci saxiixam waaye albani moo ko wéral yonent bi saa sallam nee na al abdu mucc mukk min asheytaani ci sheytaan illa bi zikrillahi ci lu di tudd yàlla allahu akbar bokk ñu bokk yàlla yonent bi nee na jaam bi mënul mucc ci seytaane lu dul ne dafay tudd yàlla waaye yonent bi saa ci beneen hadis ne sheytaan ab xaj bu suñ borom tabaraka wa taala xiirtal xaj nag bu ko boroom xiirtalee ci yow soo ci bëggee mucc doo daw doo xeex moom waaye da ngay daw làquti ji ca borom moo tax yonent bi ne jaam bi du mucc mukk ci seytaane lu dul ne dafay tudd yàlla muy làqutu ci suñ boroom subhanahu wa ndax seytaane tudd yàlla rek moo ko mën dàq benn ngànnaay buñ mën a xeex moom bu du tudd yàlla amut tudd yàlla mooy silaax bi nga xam ne moo koy dàq mooy tax mu sori la mooy tax mu daw la moo tax yont bi ñaaxe ci ne al abdu laa yanju jaam bi du mucc mukk mina yi ci seytaan illa bi zikrillah ci lu du tudd suñu borom subhanahu wa kon bokk ñu bokk yàlla kon loolu dañ ciy dégg ne ndekete yoo ku bugg mucc ci seytaane taqool ak tudd suñ borom subhanahu wa taala moo tax koo fekk mi ngi tudd seytaan maanaam koo fekk mi ngi tudd yàlla nga ko koo fekk mu ngi tudd suñ borom subhanahu wa taala seytaane moom da koy sori mais seytaane du ko jege mukk kon nañ maase ñun ñëpp di tudd suñu borom subhanahu wa taala seytaane ab jaam la comme ni nekk ab jaam suñu borom subhanahu wa taala moo ko sàkk muy jur comme ni nit ñi di juree di am ak njaboot comme ni nit ñi di amee njaboot wax nañ ne seytaane ñaari pëy la am pëyam góor ak mu jigéen day sëy ci boppam di am ak njaboot moom seytaane njabootam googu daf leen di yónni ci mbindeef yi ñu di leen di yàqal di leen di dévier di leen di xiirtal ci mooy suñ borom subhanahu wa su jëlee ab soldaaram yónni ko ci mbindeef bëgg mu yàqal ko kooko jéem ba sonn munut moom mooy jógal boppam ñëwal boppam moom seytaan ñu koy wax iblis am na ñu ne ibliis la tudd ñu ne ibnu liis mooy doomi liis ibnu liis ñu dagg ko ne iblis maanaam ibnu liis doomi liis waaye ak lu ci mën di xew moom du malaaka waaye jinn la fa fasaxa an fa fasaxa an am rabbi mu ngoog wa kaana jinni fa fasaxa an am rabbihi moom dafa bokk ci jinne yi moo taxoon mu wedd suñ borom subhanahu wa bi yàlla digle ne nañ sujjootal aadama wax nañ ne kaw suuf si ay jinne ñoo fi njëkkoon a dëkk avant doomu aadama di wàcc avant doomu aadama yi dafa dëkk ay jinne ñoo fi dëkkoon jinn yooyu nag bi nekkee ci kaw suuf di fi yàq ba yàlla jéppi leen yàlla dafa yabal ay malaaka ñu ñëw alag leen waaye booba iblis euh, muy cheytaane moom dafa nekkoon koo xam ne ku gëmoon yàlla la abid la woon jaamukati suñ borom la woon subhanahu wa ndax wax nañ ne suuf yëpp yii juróom-ñaar amul fenn foo xam ne mën nga faa def sibra ca ca iblis fa suñ borom subhanahu wa taala wala wi sax dañ koy léeboo ne fépp foo xam ne jaar nga fa jaan matt la fa rek iblis moo fa fàtte su jota suñ boroom ñii ne fépp foo xam ne jaar nga fa dégg jam la fa rek iblis moo fa fàtte su jota suñ borom te nit ki léeg-léeg mu dund ba faatu te jaan du ko mat léeg-léeg nit ki dund ba faatu it te li koy dégg di jam du bari kon su ko defee kon su ko defee bokk ñu bokk yàlla iblis kon ndeke abid la woon jaamu katab suñ borom bu mag a mag a mag la woon ñu ne asamaan suufi juróom-ñaar yëpp suuf si nekk jaamu na fa yàlla junni at muy juróom-ñaari junni at mu dem ci asamaan yi asamaan su nekk mu jaamu fa yàlla junni at muy juróom-ñaari at muy fukki junni at ak ñeent donc muy fukki junni fukki junni at ak juróom-ñeent moom moom Iblis jaam na ko suñu borom subhanahu wa taala fukki junni at ak juróom-ñeent kon Iblis moomu abid la woon jaamukatab suñu borom la woon bu màgg a mag màgg màgg boo xamante ne bii maanaam bi malaaka yi di alak maanaam ko bi malaaka yi di alak eh, eh, jinni yi nekkoon ci kaw suuf di yàq moom dafa fekkoon mu nekk ku gëm yàlla nekkoon jaamukat tusit borom bi malaaka yi di dem yóbbaale ko ci kaw yóbbu ko ca malawul ala ba demee ci malawul ala nag continue fa jaamu yàlla am di jaamu suñ boroom ànd ak malaaka yi di jaamu yàlla ànd ak malaaka yi eh, moom iblis ba benn bis nag ci la borom subhanahu wa taala bi suñu borom amalee suñ maam aadama mu wax malaaka yëpp ne leen usjudoo li aadama baada auzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim usjudoo li aadama fa sajadoo ila iblisa abba wastakbara wa kaana min alkafirin eh, sujjootal leen iblis malaaka yëpp sujjoot fa sajadoo illa iblisa ba mu des iblis iblis rek moo su jotul mu lànk abba bañ na wastakbara mu rëy rëylu wa kaana min alkafirin mu bokk ca way weddi ya boobu la weddi suñ borom subhanahu wa taala ca suratu baqara boo demee danga ko fekk beneen bi soo demee ca suratul araf danga ko fekk fi suñ borom di wax naan usjudo li aadama fa sajudoo ila fa ila iblisa fa fasaxa an am rabbi wa kaana min al jinn sujjootal leen aadama malaaka yëpp sujjoot ba mu des iblis iblis daal di weddi ndigali suñu borom subhanahu wa yàlla mu ne ma nga bokk ca jinne ya waaye du malaaka fi nga xamee ne iblis du malaaka malaaka du mooy suñu borom subhanahu wa ndax malaaka yi laa yasuuna ma amaruhum allah wa yafaluuna ma yumaruhum maanaam ñoom lépp lu leen yàlla sant loolu la ñuy def ñoom malaaka waaye lu leen yàlla tere duñ ko jege mukk malaaka du mooy suñ borom subhanahu wa taala laa yaxsoona allaha ma amrahum duñ mooy yàlla mukk moo tax ibliis mi nga xam ne ci jinne yi la bokk moom mooy katab yàlla la mu daal moy suñ boroom weddi ay ndigalam yàlla ne wa kaani ne al jinni mu bokk ci jinne ya loolu moo tax mu weddi waaye bu bokkoon ci malaaka yi du mën a weddi suñ borom subhanahu wa du weddi ndigal ndax malaaka moom lu yàlla sant rek loolu lay def iblis moomu nag kero bi nga xamee ne suñ borom weddi na yàlla yàlla dàq ko foofu daan na ko faxruj fa inna faxruj minna fa innaka rajim wa inna alayka laanati ila yawmil qiyaam génnal nga génnal dàq naa la ci sama yërmande faxruj mi naa fi innaka rajim acca jógal fii ginnaaw da ngay may weddi weddi nga ma digal naa la nga lànk acca demal sa yoon foofu lag na ko waxe na ko eh, fa izzatika la ughwiyannahum ajmain ila ibadaka minhum muxlisin giñ naa yow yàlla ci sa màgg gi iblis ku xam suñ boroom la réeré ko ndax gis nga ko bi muy giñ ci moom def na ko fa bi izzatika giñ naa ci sa tedd gi giñ naa ka ci sa màgg gi na sa jaam ñi ñu bëree bëree bëree bëri danaa leen dévier danaa leen yàqal ba mu des sa jaam ñi nga xam ne ñuy sellal lañuy ñu moo tax kon ku bëgg mucc ci iblis rek del tudd suñ boroom ba am ak sell ba àgg ci sainteté soo sellee baa gis ci séentite rek mucc nga ca moom ndax iblis pexem lu néew doole la iblis pexem réyut ndax yàlla moo ñu ko xamal ci alquran baada aoudu billahi min asheytan rajim inna kayda cheytan daif yàlla nee na pexem cheytaane lu lott la lu néew la cheytaan pexem réyut waaye jigéen moo ëpp pexe cheytaan ndax yàlla ba muy wax ci jigéen ñi def na indi na inna kayda kunna azim jigéen ñi nag yàlla nee na ñoom seen pexe yi lu rëy la lu màgg la ñu mën a def ay pexe lañ waaye seytaane moom euh, kayda seytaan daif moom am pexeem dafa néew doole ku ku ku yàlla kàttanulu képp koo xam ne yàlla kàttanulu iblis yow rek du la mënal dara moo tax képp koo xam ne dangay ngay tuddoo da ngay saxoo tudd suñu borom subhanahu wa taala du la jege iblis du la mën a déwiye iblis du mën ci yaw dara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne al abdu jambi laa yanju du mucc mukk min asheytaan ci cheytaan ila bi zikrillahi ci lu dul muy tudd suñu borom subhanahu wa taala bokk ñu bokk yàlla iblis ku doy waar la ku suñu borom subhanahu wa taala la yenn salaa salaam wax na ci beneen hadis ne yàlla may na iblis kattan goo xamante ne bii mën na koy daw ci yaramu doomu aadama comme ni deret di dawe ci yaramu doomu aadama allahu akbar maanaam ni dereti doomu aadama di dawee ci yaramu doomu aadama yàlla may na iblis kattan gu tol noonu mu ak pexe yu tol noonu mu mën a dugg ci doomu aadama di daw ci moom di soppante ki moom ni mu ko soobee comme ni nga xam ne deret di doomu aadama noonu lay dawee ci moom moo tax yonent bi salaasa mi nga xam ne xam ne iblis mu digal ñu ñun góor ñu ne ñu laa yaxla wan na ahadukum bi imraatin illa wa shaytaan salisuhuma yonent bi salaasa wax na ci addis bu wér ne amul benn góor boo xam ne dana wéet ak jigéen jigéen joo xam ne nekkut maanaam soxnaam lu dul na seytaane mooy ñëw ñetteel leen nekk seen ñetteel nee na su ñëwee nekk seen ñetteel day soppeeku ngelaw dugg ku góor ki soppeeku ngelaw dugg ku jigéen ki di leen xiirtalante ci ci seen bopp ku ci nekk mu sànni ci sa xol ak ci sa bakkan bànneex ak yëg-yëg boo xamante ne bii da nga dem ba àgg foo xam ne dutoo mën a téye sa bopp mu jaxase leen ngeen mooy suñ borom subhanahu wa moo tax yontu bi saa salaam tere ñu ko ne amut benn góor buy wéet ak jigéen lu dul na seytaan moo leen di ñetteel jaxase leen bañ def loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala ko seytaan ne keroog bi nga xamee ne suñu borom subhaanahu wa taala da koo dàq ci yërmandeem ji ci la ko wax ne ko giñ naa ci sa tedd ga ji ne sa jaam ñu bari bëri ñu bëree bëri bari dinaa leen diwiye mu waxaat ne la aqudannahum siraataka almustaqim danaa dem ba ci sa yoon wu jub wi nga xam ne foofu lañu war a jaar ma toog ci débiye leen ku ñëw ma débiye la yóbbu la ci sama yoon wi moo tax ñu bëri seytaane nax na leen seytaane yàqal na leen seytaane débiye na leen ba moom leen ñu bokk ci kuréelu seytaan muy xisbu seytaan alaa ina isbu cheytaan humul xaasiruun la alquran wax alquran nee na isbullah humul muflihun waaye isbu cheytaan humul xaasiruun yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo bokk ci sama kuréel ñooñu de texe nañ ba fàwwu texe goo xam ne amut fu mu tàmbali amut fu mu yem ba fàwwu waaye ñi nga xam ne dañoo bokk ci kuréelu iblis humul xaasiruun ñooñu de ñoo ñi nga xamante ni bii dañoo pert perte nan adduna waaye perte nan ëllëg yowmul qiyaamatul akbar euh, iblis ëllëg yowmul qiyaamatul akbar mooy jiitu firawna yore drapeau yore ab drapeau mboolem ni ñi topp ci seen kaw moo tax alquran ne firawna yaqdumu xawmahu ila naar firawna ëllëg ak ñi ànd ak iblis ñëpp iblis ay jiitu firawna topp ci yore drapeau bi mboolem ñi ci des topp ci kaw firawna mu ànd ak ñoom yóbbu leen eh, ñu ànd dem tabbi sawara wala yaasu billah iblis moom ko mën a yàq la eh, wa isqaal insaan wa isqaal iblis lil insaan akfur falama kafar xaala inni bariun mink inni aqaafu llaha rabbul alamina akbar mbokk ñu bokk yàlla xoolal ma lii nga xam ne iblis moom lay def iblis day ñëw ci doomu aadama na ko ukfur weddil ba doomu adama ji weddi falamaa kafara xaala inni bariun mink su weddee rek mu ne ko man de ko dañ laa ci yow ndax lan mu ne inni aqaafu llaha rabbul alamin cay iblis moo day waar day ñëw ci doomu aadama ne ko weddil yàlla ba mu weddi mu ne ko man ko dañ laa ci yow allahu akbar ndax man kat ku ragal yàlla laa inni aqaafu llaha rabbul alamin man ku ragal yàlla laa xoola iblis ñu saay-saay day ñëw fexe la fexe ba nga mooy yàlla fexe ba nga weddi yàlla mun la kat tey bis ni ki tey inni bari inni bari un mink dañ naa ci yow tey ndax inni aqaafullaha rabbal alamin ndax man ku ragal suñu borom laa subhanahu wa taala ku ragal suñu borom laa subhanahu wa taala loolu la euh, di la wax day ñëw wax la ne la man mii kat inni axaafullah ukfur weddil nga weddi fa la maa kafara ba mu weddee moom doomu aadama jooju mu ne ko inni bari un min ka dañ naa ci yow tey bis ni ki tey kat na xam ne banaa la dañ naa ci yow ndax yow ko weddi yàlla nga ndax man mii kat inni axaafullah rabbul alamin ndax man dama ragal suñ borom subhanahu wa taala seet xool iblis ni muy naxee doomu aadama moo tax ku nekk war nga ko bàyyi xel moo tax su la fexee ba nga mooy yàlla rek waxtu wi ngay mooy yàlla mi nga ànd ak moom moo tax sooy mooy suñ borom doo xalaat ndax iblis day tëj sa lépp fi ngay war a xalaate sa lépp kàttan yi nga am yëpp day dugg sa yaram wi fépp maanaam mu pikiir la pikiir yooyu nga xamante ne bii maanaam euh, moom la moom la docteur yi di pikiir buñ lay buñ lay pikiir yenn pikiir yi pour bañ maanaam pikiir bi metti iblis dafa am loolu su ñëwee day fexe ba sa xel mi doo ci xalaat sa lépp sa sa xawaas yëpp lay jàpp ba doo xalaat lenn lu dul maanaam jëfee loolu lii nga xam ne moom la bëgg ci yow soo demee ba jëfee ko nag mu dekk-jekk rek dañ ci yow génn ci yow su ko defee yow sa xalaat yi yëpp daal di ñëw na nga daal di rëccu nga daal di rëccu rëccu gu mettee méttee méttee méttee méttee méttee méttee ndax lan moom moo na la inni bari un mink inni aqaafullaah rabbul alamin dañ ñaa ci yow ndax man dama ragal yàlla gis nga iblis noonu lay def ay gaayam yàlla ñu yàlla musal ci moom gis nga iblis suñu gis nga iblis ku lay waar la gis nga keroog day def dis dana def discours bu rëy rëy rëy rëy mooy iblis discours bu rëy lay def keroog bu suñ borom subhanahu wa taala ñëwee e, jaam yëpp taxaw jinne doomu aadama malaayika seytaan yi ñëpp taxaw iblis day def discours am bu yàlla atee ba noppi ba ñu war a ànd moom dem sawara day daal def discours am lay def moom iblis inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum wa axlaftukum eh, dafay def discours bu rëy inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum yàlla kat daf leen a digaloon ab dig boo xam ne dig bu dëggu la may ma dig leen fa axlaftukum ma wuute leen ak dig bi leen suñ borom tabaraka wa taala dig tey nag yàlla atte na ñëpp ñu àndoon man sawara lañ jëm falaata loomoo nii wa loomoo anfasukum bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp allahu akbar cettttt bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp cettt bokk ñu bokk yàlla nañ xalaat foofu discours iblis bi inna allaha waadakum waadal xaq wa waat fa waat wa inna laa waadako waat yàlla dig na leen ab dig ma dig leen ab dig yàlla moom dig bi mu leen dig dëgg la bu wér la mayen ma dig leen ab dig fa axlaftukum ma daal leen di wóotaloon ak dig bi leen yàlla dig ngeen dafa ñukk yàlla ak li mu leen digal ñëw topp ma man iblis ak li ma leen digal kon nag tey jii falaa taloomoo nii falaa taloomoo nii wa loomoo sukkum bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp allahu akbar ndax man ko yëruma woon sama bi di caw kenn sama yu neex rek laa yoroon ak samay bànneex ngeen wan ginnaaw yàlla topp ma tey jii na ngi ñëw yàlla àtte na ñi dem àjjana dem àjjana yéen nag man ngeen àndal dem sawara bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp allahu akbar bokk ñu bokk yàlla ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax iblis ak pexeem bokk ñu bokk yàlla iblis nga noonu ku doy waar la boo jëlee mbiram ku ñuy wax biir siis ku ñuy wax biir siis ak biram balaama ay nit yàlla lañ woon ñoom ñaar ñoom ñëpp muy biris biir siis ak balaama ibn baawora ak biir siis biir nit yàlla woon koo xamante ne bi dafa ku mënoon a jaamu suñ borom la subhanahu wa nekk ci dëkk ba mu yàgg mu tuxu dem ca àll ba def fa néegam di jaamu yàlla di wéetal suñ boroom subhanahu wa foofa moom iblis moom biir siis di wéetal yàlla di jaamu suñ boroom képp ko feebar ca dëkk ba rek suñ la indee rek maanaam bu la ñaanalee rek nga daal di wér ca saase seytaane na xaaral kii daal xaaral ma ñëw defal ko ay pexe defal ko affaire mu xool jigéen ja gën a jong ma ca dëkk ba iblis daal koy sadd daal koy song muy daanu ay rab di say moo tax ku naan rab amut wala seytaane amut da ngaa xamul rek iblis ñëw dugg soxna si maanaam muy daanu ay rab di say su sayee su daan ñu jël ko indi ko ci biir siis biir siis ñaanal ko mu daal di wér ca saasa iblis génn ci moom rek mu daal di wér ca saasa ñu dellowaat buñ ko dellowaatee mu toogaat tuuti rek mu sat daat ko mu daanuwaat rek ñu indiwaat te yooyu yëpp kat maanaam iblis mi ngi ànd ak ñoom bi jaani daanu yi jegee iblis feeñu waajuri xale bi ne ko ginnaaw moom dafay daanu daan ca te daanu daan yi dafa jege soppeeku jëmm dangeen ko fay baax dangeen ko fay yóbbu bàyyi ko fa ñu ne ko mante wax nga dëgg de ñu del xale bu jigéen bi jàng bi dem yóbbu ko fa daa di wax biir siis ne ko ginnaaw daan yi dafa jege dan la ko mu ne waa baax na mën ngeen ko fee baax mu defaral ko fu mu nekk maanaam nekk ak moom moom ma nga continuer di jaamu yàlla su ko daaneelee rek mu ñëw fekk fi mu nekk ñaanal ko mu daal di koy bàyyi mu dem ba mu yàgg rek iblis di ko sadd rek su ko ñaanalee balaa dem sax mu saddaat ko mu daanowaat mu ñëwaat xale bi nag mi ngi taaroo taaru jongama ma jonga boo xam ne yéeme na lool iblis jekk-jekk rek am lum sànni ci xoolu biir siis biir xool xale bi rek xelam nekk ci moom allahu akbar bi xelam nekkee ci moom mu ma findirteeru jiima muñ jiima góorgóor jiima lu nekk ma def ko mënta fexe ba xel mu génn ci xale bi mu jekki-jekki rek daal di nekk xale bi tëdd xale bi tëddee ko saa su soxlaa rek ñëw tëdd xale bi saa su soxlaa rek ñëw tëdd xale bi allahu akbar ba mu demee nag ba nga xamante ne bii tiit na moom xale bi ragal na mu nekk mu mu ëmb ca boobaa gàcce lay doon ci moom Iblis na ko ah, léegi nag tëdd nga ko ba mu ëmb de feeñu ko te kii de yow nii nga mel ci dëkk bi day su ko nit ñi yëgee da am gàcc mu ne ko nu may def mu ne ko dama la koy jàppale nga rey ko moo jàppale la nga gas ko suul su suñ ñëwee nga ne leen rab ko daane woon feer bee ko daane woon mu faatu ma suul ko mun ne ko nu koy def mu ne ko dama koy rendi mu jàppale ko mu rendi mu rendi xale bi gas ko suul ba mu defee noonu nag Iblis daa fay jóge rek daa dem ca Eh, kii mbokki xale ba ne ko waaye yéen yéen seen doom ji moom nu mu def ba xanaa tane na xanaa ab xale kay ku ko yóbbu ne léeg-léeg na nga des ko wax nga dëgg de ñun dëgg ñu fa dem seeti ko ñëwee rek ci biir siis nuyu ko na ko ana xale bi nu mu def mu ne ko ah xale bi kat feebar bee daane woon ba mujj na faatu ba suul naa ko ñu ne ko ah mu ne waaw ah loolu la yàlla dogal iblis na déedéet moom mi moo ko rey da koo tëddee xam ne maanaam ëmb na mu daat koy rey mu ngi nii fii kaan jama wan leen fa ko suul su ngeen ko suulee da ngeen gis ni mu ko rendee muy ñëw wan leen ko ñu gas ko sulli ko biñ ko sullee gis na da ko rendi ñu jàpp ko yóbbu ko ca dëkk ba ne xool leen kii li def xale bi ñu pàndar na dañ koy rey biñ ko pàndaree ba war ko rey iblis feeñëwaat biir siis na ko soo ma sujjootalee rek ma xettaleel fi nga nekk soo noppee dellu ci suñ borom mu ne ko ah, mu ko soo ma sujjootalee rek ma la fii kenn du la rey soo noppee tuub mu ne ko nu mu lay sujjootale te man e, ñi ngi ma yeew mu ne ko danga may sujjootal ci sa xol da def ci sa ci sa xel ne sujjootal naa la allahu akbar cay iblis moo bëri pexe Birsiis def noonu ci xelam rek ne sujjootal naa iblis rek iblis na ko yuuxu ko rek na ko waaw mu ngoog loolu rek laa buggoon def naa la nga dib wedd nga suñ borom subhanahu wa taala yow safara nga jëm xamoon nga ne daana ko xanaa xam mooma man maay iblis na fes bàkku fa gis ngeen bokk bokk yàlla iblis ni muy def noonu lay def jaami yàlla yi rawate na ñi nga xam ne sax dañuy góorgóorlu ci yàlla moo tax naagu wóorut ku naagu daagu te ku daagu dañuy dem bala yàlla nañu yàlla musal ci iblis ak i pexeem ba balhaam im na baawara moom ci nit Seydina Moussa yi la bokkoon boroom xam-xam la woon bu daa waxtaan li koy li koy li koy wër ci nit kenn xamul ñaati junniy nit lay toll ku nekk nit ñi dañuy yor seeni xalima di bind muy waxtaan ñuy bind muy waxtaan ñuy bind moom Balhama ibn Baawura benn bis Moussa nit mu euh, am nit ñi ñëw ci am na ko yow Moussa mii dañu sonal ci xeex yeegi yëpp na nañ ci dañoo bëgg nga ñaan yàlla maanaam Moussa mu leen hee man su ma ñaanee yàlla musaa yàlla alag ma Moussa ab yonente la su ma koy ñaan yàlla rek yàlla di ma alag waaye gis nga bawun ko bañ demee ba të mënu ñu jaar ci soxnaam bañ jaaree ci soxnaam mu ne ko yow lii liñ lay wax mënoo leen koo defal waaw leen koo defal bi mu demee rek yëg ci kaw xeer wa fa daa yéeg pour ñaan yàlla ne day ñaan yàlla Muusa rek yàlla bocc làmmiñ wa maanaam yàlla bocc làmmiñ wa mu boccee ko comme làmmiñu xaj di yàlkat ni xaj di def yàlla def ko noonu in tahmilhu yalas aw mu ngoog moom it foofu la jaare alku sori yërmande suñ borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla musal ci iblis moo tax suñu borom subhanahu wa taala mu ne waskuro la azkurukum waskuro nii wala tudd leen ma ci bu leen ma weddi tudd leen ma ci bu leen ma weddi allahu akbar waskuru laa kasiran wa sabbi wa bukratan wa asila di leen tudd yàlla lu bari te di ko sabbaal ci suba yi teel yi ak ci ngoon yi allazina yaskuruna laa qiyaman wa qu'uda wa ala junubin wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta haza batila subhanaka faqina azaba annar yàlla mi ngi tagg ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla di xalam ci asamaan ak suuf di ci xalaat suñ taxawee di tudd yàlla suñ toogee di tudd yàlla buñ tëddee di tudd yàlla yàlla mi ngi leen di tagg alladina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkuruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalata aza batila subhanaka faqina azaba annar allahu akbar kon bokk ñu bokk yàlla liy musali seytaan mooy jàng alquran taqoog jàkk ja taqoog tudd yàlla képp ku ko def rek seytaane sori la di jàng alquran foo toll di zikkar foo toll di taqoog jàkk ja di fa jàng alquran wala nga fay julli wala nga fay tudd tur yàlla wala ci sa kër wala ci sa néeg képp koo xam ne ci lii nga sax seytaane moom daf lay sori ba faw kon bokk ñu bokk yàlla yonent bi nee na jaam bi du mucc ci seytaane lu dul ne dafa taqoog tudd suñ borom subhanahu wa taala kon bokk ñu bokk yàlla maa ngi guddal dégg leen foofu seen baaram ba suba ci waxtu wi ci heure bi kii seen soppare ci yàlla Abdoul Ahad aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa saa'iril mu'minin wa salaamu alaykum wa taala wa barakatuh baal xaq tabel gañ ba ama majma'ul bahrayni barhama géej bambulan xutbu zaman fay soodaan sidi barama mun ñi hiidu ñes won ñi sa makkaan xaliilu rahmaan yàgg nga wàcc di rabel nga ni baama géej mam bu naan zaman xëy na soodaan si di baama Abdou Qadir Jaylaani barama ko mbaal man ko garde maraw ala xam na barama man noon baharayni barahama am géej mam bu zaman xëy na soodaan si di baama géej la mbambulaan la baraama ko mbaal man ko garde ma yow ala xam na baraama man maul bahrayni barhaama géeji mbambulaan xutbu soodaan siri baraama gis nga ñi ma lim ak ñi ma limul baraama leen mbaal leen garde ma yow ala gañu baraama ci bambu dam xutbu zaman fay na soodaan seri barama abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil gëstaloo dam seri barama